mënaloo seen bopp dara te suñu sañoon ñu jàppale leen fu ñu di nekk ak fu ñu mën loolu rek moo war a gis ñu xam ne existé nañ ñu ngi Cambérène am bu mag kon pour jàppale jàppale suñu xale yi ñu la ñu def moo war a gis. ginnaaw jàppale bi euh, yéen ñi nga xam ne yeneen mag yi seen i jafe-jafe yi ngeen di jànkuwanteel lan la. ah loolu moom metti na mais sant yàlla rek ndax taalibe Baay Laay moom day dëgër rek amul dara loo xamante day ñëw di leen si loolu la ñu Baay Laay alayhi mais ñu góorgóorlu daal li mu mën ñu ngi koy def. nan ngeen xaar ci état bi pour ñu jàppale leen yéen ñi nga xamante ne ay maanaam da ngeen am li nga xamante ne moom mooy ay euh, euh, handicapé. waaw li muy xaar ci état bi bari na ndax euh, bébét yu bari nga ni fi tey ñu si xale yi tey xale yi tey mënuñu jàngi fenn loolu ma gën a metti sama man daan naa jàngi di dem di dem ñëw mais xale yi tey école buñ dem ñu daa xamee ndax ni nu mel ndax genre la xale boo xamante ne mënul nekk ak seen yeneen moroom xale yi kon suñu sañoon tey état bi si loolu la ñu a defal mooy jàppale si tool ma sañoon loolu la ñu état a defal bi jàkkaarloo ñu benn benn euh, liggéey benn kii nu mu tudd benn benn benn message booy lancé état bi ci wàllum xëyu ndaw mi pour ñu mën ci dugal ñi nga xamante ne ñoom ñooy seen nga xam ne dañoo amee way way laago ñu ma utal leen ay place waaw ndax euh, way laago amul doole côté rek la amul beneen côté kon état bi war na ko a yi waaw parce que ñoom dañ ko mérité mënuñu ñaan mënuñu tàllal la dafa bañ saraxu bañ ñaan ba tax muy def ne na xool fi nga xamante ni moo métti mu laal état na xool fi nga xamante ni dafa mu laal boobu man li may wax xam naa si ma tollee nii laa handicapé ba tey kon man handicapé yàgg naa man kon lu ma ci wax rek man xam naa ko xam naa moo tax ma bëgg mu jàppale leen. carte d'égalité des chances man ko déposé mën na ay at tey ñu jotuma ko ba tey mais ñu ngi toog rek di xaar. lu war a jotoo leen loolu. waaw xamuñu ko xamuñu ko mais li mu war a def yëpp def nañ ko waaw ñoo ngi doog a commencé nag suñ première émission waaw pour bëgg rek ak gën a kanam yi koy doog commencé ñu xam ne lii am na mooy li ma leen wax am na Cambérène yu bari nag fii man nañ fii de cinquante personnes ñi am groupe WhatsApp ak yëpp di doxal suñuy biir yëpp waaw kon suñ sañoon am ay partenaires yu ñu jàppale parce que ñun tamit mënuñu engagé xale yi te mënuñu leen jàppale mais ñu ngi def suñu kéem lay tàttal euh, bismillahi ñu ngi sant yàlla di julli ci gën ci mbindeef ci Seydina Muhammadu Rasulullah boo xam ne mooy Muhammadu Limaamul Mahdi moo nekkoon démb nekk tey di lu ñu ñëpp di dalal ñëpp bég lañu ci seen teewaay di leen sant di leen gërëm amuñu seen tay ndax pour une première waxuma daanul am de mën na am feneen ak yëguñ ko mais ay handicapé boole lañ am ñu leen jàppale defar ndogu mais jox ñi nga xam ne ñoom. donc ñu ngi dañuy sant yàlla ndax loolu ñu ko defee ci ndigal Seydina Laay muy taaw xaj euh, Cheikh Abdoulaye moo ñu xamal ni bu leen doon handicapé bi tàllal loxo bi yalwaan handicapé yi nit ñi dañoo jàpp bu amee laabal dana war sa loxo bi di am lu may lu màgget jox ko handicapé bi ñun dañuy sant waa Cambérène sant demee lu noonu ñun ñu gën a ñaanal amee suñu borom dogal na doolu ñoo xam di sant yàlla bu baax maa ngi tudd Abdallah Kouli. am na solo oh, Abdallah oh, santiment bi ginnaaw bi ngeen euh, waxee ne euh, lii mooy seen première édition euh, yan sentiment nga am afin que ngeen jël ay ay ndogu di ko jox ñi nga xamante ne ñoo leen waroon a jox. waaw sant sentiment mbégte la fierté la parce que mbégte fierté wuute la lu tax doon mbégte ak fierté mooy am na ñu doon xalaat ni ñii handicapé daf na leen dinañ dëgg yàlla waaye dinañ tàllale seen loxo am ngeen xalaat ni ñu ngeen ko judduwaale du ñu mënal dara seen bopp waaye yàlla dimbali na ko boolewul handicapé kàmbale ci loolu moo handicapé nag des fois ñu ne nee na boo ko faral di wax ma ne non non handicapé baatu tubaab la du dara lu ñu amee laago laago nag dafa bëri anam parce que ñu fii ay ay am nañu ay intellectuel am nañu ñuy liggéey am ñu nekk ci cabinet maire donc ñu am ci complexe am nañu handicapé boo xam ne c'est un délégué de quartier donc ñun dañu war a am fierté bu bokk laa ko ndox mi ñu neexee am na solo. ginnaaw bi ñu sant yàlla ñu ngi si sant sang yi moom Baye lay di dellu di sant bu baax di masawu aussi di am ay kàddu sant ak ngërëm yi nga xamante ne dañ koy jël di ko teg ci kii nga xamante ne moom mooy association bi regroupé ñëpp ñu am laa ci Cambérène. nekk ay kàddu cant ak ngërëm tey di koy jëmale si ñoom comme ni ko président bi waxee rek danaan nekk ay occasion yi nga xam ne ñun ñoo daan ñëw di leen jox tey ñoom ñu dem ba ne dañuy tourné waat yi ñoom ñu jël di joxe donc loolu cant la lool dañ ciy sant bu baax a baax di leen ci gërëm aussi di leen wax ne Labo terewul nit def li mu bëgg a def terewul nit am métier terewul nit am jàng-jàng yàlla di leen ci gërëm di leen ci ñaaxoo ci leen wax ne persévérer continuer àdduna noonu la ñëpp ñu ñoo bokk même sens ñu ñëpp ñoo bokk même prix donc ñu ciy sant bu baax a baax beneen bi nekk ay cant gàddu cant yi nga xamante ne dafa jóge ci mouvement bi nga xamante ne tey moom moo ma yabal ma teew fi tey muy dooleel diaspora dooleel diaspora nekk mouvement bi nga xam aussi lu am bëgg-bëgg la ak yëg-yëg ci Cambérène tey li ñu wax ne aussi seen président tey mouvement diaspora tey doole diaspora noué na tey benn partenariat entre moom ak yéen ba nga xamante ne au sortir de lii di ngeen si gis dara di ngeen gis firnde yi te dinañ si gën a donc pour ne pas monopoliser la parole et que heure docteur la dañuy sant yàlla rek encore une fois di leen wax merci allahumma salli ala sayyidina Muhammad Moussa Mbenga représentant doole diaspora ñoo woote lii dajale ko parce que association bi ci li ma ci xam lépp mooy handicap bi dafa wute am na xale yoo xam ni ay problème mobilité la mais ñoo xam ne visuel la ak ñi nga xam ni problème problème wax la donc wute nañ daal donc may moo damay faral di wax ni les personnes vivant avec handicap ñu ngi rafetlu bu baax seen Il rafetlu bu baax bar de nga xam ne aussi moo ñu invité parce que association yomb na trop vraiment association mais association li koy déterminé mooy dynamisme mooy ay programme te dirigeant yi ma gis muy le président ak bureau bi nga xam ne moom vraiment ay ñu initiative parce que dans l'histoire de caméra, c'est la première fois ñu gis lu mel ni ay association organisée donc dañ leen di féliciter di remercier di ñaan aussi ñi nga xam ne aussi ñoo fi nekk nekk seen i parrain jàpp ci ci kaw ba ci suuf ci fii ma toll rek ku mel ni Abbas Mbengue mi ngi fi ku mel ne honorable mi ngi fi mel ni Aziz lu bees mi ngi fi ay Diouf Sarr loolu ku ne ku lëm fa am ñoo fàtte mais ñooñu mi ngi fi di jàpp ci action bi donc ñoom ñoom dañ di remercier di ñaan.

donc Cheikh Issa Moulay bi nga xam ne sur le plan social sur le plan développement culturel et autres ñëpp xam nañ ko te yàgg na ko def yaakaar naa ne fi ñu ko defee fii place bi place bu am solo la daf ñu rappeler rek un peu l'histoire de Firi Ousseynou Laye bi nga xam ne doomu Cheikh Issa Moulay la te daan def lu mel nii si nga nañ ko leen ñu koy def mu nekk

da ngeen xam ne lu am solo lu am compétence la si wàllu social te nag euh, dafa nekk loo xam ne tey am na solo donc ci dugal naa l'histoire de Cap parce que su fekkente ne ay personnes association d' handicap dañuy bàyyi xel seen population dëkk je pense que ñi nga xam ne ñooy gérer la politique euh, territoriale yi en en particulier le maire de la commune bokk na si ñi nga xam ne kenn warukoon gis lu mel nii te je pense que ñii ñu war a jàppale lañu euh, nañu fexe au lendemain de cet euh, événement euh, mu oo leen waxtaan ak ñoom jàppale si fànn yëpp donc loolu laa amoon si gàttal loo xam ne mu la wax merci. Tambadé ñoo ko initié aussi rafet bi nga xam naa dinañ si gën a waxtaan ñu gën a gën a yaatal mbir ba nga xamante ne ku jàppante te mun na njëriñ seen askan mun na njëriñ seen bopp ñu nekk bi danañ leen euh, damay ñaan aussi ñu leen di si boole bu leen di isolé tout le nañ leen di boole lépp loo xamante dañ koy loo xamante mun nañ ko contribuer apporter ko si si si gox yi Sénégal